waaye tey fas yéene naa ko découvrir leen ko dugg ci ruq-ruqaat yi génnee ko indil leen ko lum salaamaaleykum lum asalaamaaleykum di nuyu képp ki nga xamné ne yaa ngi seetaan à travers Hann TV mhm. donc di wax ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yenente bi sallalahu alayhi wa hmm di sante sama ñaanu waajur aussi mhm. tamit di len ñaanal fa ñu nekk yàlla na len gënal fa ñu jógee yàlla defal ko mboolem way dool ñu fa fekk yalla am na ko sañ na ko mën na ko yàlla ko yàlla defal aussi tamit de de de de rafetlu invitation bi. Mhm. de rafetlu invitation bi trop pour wax la nag ci lum l'homme des trois L. Mhm. jafe na jafewul parce que voilà nek na ko xamné un jeune artiste bo xamné bima commencé def musique yàgg na mën naa wax Yagoul parce que ça fait trois ans. Mhm. ma ngi def musique. donc ça fait trois ans yo xamné ma ngi def musique. kon donc boo ma laajee kan mooy lum dinaa la c'est un jeune artiste. buy def musique quel genre de musique mhm. musique duu laay def musique duu may def nak euh, defuma pour n'importe comment non dafa am luma permettre ma mën def musique bobu parce mhm. que dama focaliser wu aussi tamit ci sama voix ok donc moo tax musique du bu defé amna ci inspiration pour def ko parce que dafa nek lo xamné dama ko yag bëgg ok mais Loum euh, li ma la bëgg laaj moy pourquoi tour bobu Loum pourquoi lutax lan motax lan mo waral tour bobu quoi

3 LB, qu'est-ce que ça signifie. Mhm. malgré que ni ki une signification sur Facebook. je mhm. naa ci Facebook pour expliquer lu bëree mhm. donc l'homme des 3L maintenant le 3L dafa définition qui m'a inspiré Le première L je dama tiré comme liberté. liberté. donc pour liberté le première L moi je suis libre. Je me considérer que man je suis un homme libre. et pour dire une chose que je suis libre de faire percer. Et je vais percer. Je suis libre de faire dire mes propos et mes pensées. Okay. que je le sens, tel que je le pense. Donc je waral dire elle bi ma comme l'homme des les trois ailes beneen elle aussi ma comme la loyauté. donc suis loyal. donc je suis loyal envers mes proches. Mhm. envers mes amis et je serai toujours loyal. mais ben, elle, elle bi mu question boo me ne may sonal souvent. Uh-huh. mais yow dinaa ne ni quand je serai un célèbre. Uh-huh. dinaa ci sawar joxe signification boobu. mais mais mais est que doon ko may Hann TV ñu ñu ko am quoi ñëpp xam ni Hann moo njëkk am. Euh, <laughs> dernière bi quoi. waa da da jaadu. da doon ma jox la signification boobu noonu. mais dama la uh-huh. ko ñaan quoi. Uh-huh. bëgg naa ko bàyyi denc ko ba un jour voilà xam ma rek bu ma demee ba yàlla def dara ci musique bi. bon je vais le dire quoi. bon maa la ko ñaan. loolu xalaat loolu laa gis ba tey yàlla nañu fekkee loolu. ñun ñëpp incha allah incha allah euh, ba pare beneen façon bi mooy. Euh, sa façon musique mm-hmm. maanaam peut-être bokk naa ci ñi la déglu mm-hmm. xam musique bi ngay def mm-hmm. maanaam tey su ma la doon laaj pour nga leeral ko askan wi yow ban musique ngay def ban façon musique ngay def ba ma a laaj musique bu may def mën naa ni je suis un mélomane uh-huh. mais si fu ma gën a focaliser wu mooy musique douce laay def uh-huh. donc musique douce laay def ok musique douce est-ce que mën nañ ci santé sa bopp tuuti nga wan ko waa Yaraax ñi nga xam ni ak waa Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo lay déglu te nga xam ne xamaguñ la ñu bëgg nga wane sa bopp tuuti pour gars yi xam yow musique bii ngay def quoi. waaw loolu moom du dinañ ci sawar lool. pour def ko pour xamal ni rek ni musique bu ñuy def dafa nekk musique boo xam ne. Uh-huh. Euh, c'est très difficile. Mm-hmm. parce que dafa nekk musique boo xam ne li ngay wax dañ ko war a donc li ngay wax dafa war am solo. mais aussi tamit comme que dañoo porter voix boobu mu nekk voix boo xam pour dénoncer la pour sensibiliser. Mm-hmm. donc yoon la kàddu yi ñuy wax mu nekk kàddu yoo xam ne nit yi dañ koy dégg. donc bu ma la doon waxal ci musique bi may def mun naa la ci. quelques textes yoo xam ne bind naa ko ci sens boobu. bëri na bind naa ci mbëggeel bind naa ci yaay bind naa ci euh, jaar-jaar bind naa si aussi li ma jot a dund bind naa si lu bëree bare bëri. ba tey mën nga ñu may ci son yooyu benn bu ñu mën a déglu xam ni kii mooy lum Sénégal yëpp xam ni kii mooy lum. bàyyi li nga may def bul ma jàppee dof yaa ngi fàttaliku yow bi nga may topp. yu neex nan man nganap ma ma bañ ngan ma du ci dal suma la dalalule yow dootoo añ may ki lay gaay sa kaddu yu dëggu yitte bi nga amone fu ma rombu gis la nga jox ma nit ku baax di ma ñuy and fo di single macha allah macha allah parce que am nga voix bi. Mhm. te ñeme nga li ngay def. Mhm. loolu moo ci importance. Mhm. mais tey euh, lu tax fàttalikul bi ngay way ma ngi dégg nga wax ci ay baat yu am solo. lu tax fàttalikul boobu lu tax. fàttalikul boobu xam rek dafa nekk loo xam ne. Euh, mbëggeel la son bi ci mbëggeel la wax mhm. donc ñu inspiré ko suñu bopp inspiré ko aussi tamit euh, si un ami mhm. muy Aba souvent dama doon moom di ko tooñ ci sens boobu que ni góor dafa war a fidèle bàyyi leen bu ngeen amee benn gel xam nga dem ba ci biir amaat keneen fàttalikul bi ci ci loolu laa ko tiré maanaam fidèle quoi maanaam góor ak jigéen mhm. dañ war a ku nekk si ñun dañ fa war a fidèle quoi maanaam wax way bi foofu nga ko waxee mais ñu déglu son bi mu am am original tey mhm. ban studio nga dugg ba def son bu mel noonu. waa son bu maa ko defee Blacking de passage maa ngi nuyu ñoom Baye Dioum. waa ji Black fa ko defee. ok waa ji Black. ñu jàpp ci trop nag ñu jàpp si trop ci ci ci liggéey boobu. musique bi fa defee single boobu. d' accord y' a pas mal d' artistes. Mhm. ci bi yëpp. Mhm. tey nga yow nga ñëw imposé wu. nekk benn jeune talent teg lii ne man lii fii laa bëgg jëm. yoon bi nu mu xam ak yoon bi nu mu taree nu mu mettee yow nga ne da ngay dem. lan moo la gën a jox courage pour nga ne da ngay def musique. waaw donc mu nekk yoon bu difficile en musique. Mhm. mu nekk yoon bu gudd aussi tamit. mais tamit am ci ngëm-ngëm quoi ak courage. li nga xam ne am nañ ko si mais am nañu amour ci musique bi ñuy def parce que suñu passion la boo xam ne tey dañ ko bëgg dañ ko gëm aussi. mais tamit aussi dañoo wóolu suñu voix nga xam ne mu nekk loo xam ne tey moom lañu am bu neexee bu neexul ñun on est fier de notre voix mu nekk loo xam ne tey moom moo ñu may sens bi nga xam musique bu am dinañ ci mën a woy ci loolu moo tax am na gëm nañ suñu bopp ni incha allah on va faire quelque chose nga gis artistes yaraax yo xam ni au niveau international la ñu jox mhm. man est-ce que jotul mhm. nga dem foofu si ñoom mhm. di waxtaan ak ñoom su dee sax Euh, parfois day am. Mhm. sa première partie seen première partie ñu dugal la ci kaw chaîne. Mhm. nga leen koy defal mhm. parce que pas mal artistes yu fi jaar yëpp ci àdduna bi. yaakaar naa def nañ loolu. tey ñu am fii ay artistes yoo xam ne ñoo nekk ci Sénégal. ñu niveau international bi. ñu ngi fay def loo am solo. benn muy waa Frère gise ah tey boo waxee euh, off. dangay wax waa Yarax. ñooñu nga xam ne ñoo gën a ñoo la gën a yàgg ci mbir mi gën la xam mbir mi. nga boot seen ginnaaw. waa loolu aussi tamit lu am solo la wa pour wax ne ñun dañuy door a débuté tëjaluñu suñu porte kenn té aussi tamit dinañ nit fu mu ne dinañ la fa fekk pour nga jappalé ñu dara quoi parce que xébuñu ben ndimbal. Mm-hmm. xébuñu ben aide. donc dina wax ni doomu yarax la mm-hmm. donc yarax la judo yarax la am bu ma don tiitaroo aussi mom lay tiitaroo kon donc ñoñu euh ñu ngi leen di lancer message ne ni seen doom yi ni mi ngi def musique. war nañ ko mën a soutenir war nañ ko mën a jàppale te dinañ dem si ñoom incha allah. d'accord dinañ dem si ñoom. doomu yarax la. Mm-hmm. dañ ko war a soutenir dañ ko war a jàppale ndax doomu yaraax la tey su ma doon wax yaraax la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la xamee lépp fi la ko àdduna bi xamee fi la ko musique dabee jàppale leen seen doom ndax dëkk amul lu dul lii sa doom di yëngu ci dara nga jóg teg ko loxo ba mu réussir ndax mu sag bi sagu yaraax la mbégte mi mbégu yaraax la sa base si musique fan la sama base si musique euh, moom laa la wax sànq fan nga commencé quoi commencé musique di def musique di ko fowantu ba toll fii tey nga am toll fii tolluwaay ba mu dem ba sérieux waa bi may dala foo ci musique nag yàgg na mhm. parce que depuis 2006 biñu daan faral di dem ay sorties affaire yooyu ci bus si man maa daan yëkkati musique man maa woy ci kaar souvent bu ñu daan dem sortie loolu lañu ma daan tooñee affaire bu ñu fubalee nawetaan bu ñu gañee man maa daan woy wala nawetaan wala mas xaar xaalis souvent foofu laa amee inspiration boobu mu topp ma mais tamit pour wax loo xam ne tamit ñu bëri xamuñu ko ci man man sama maam Kuyaate la sax. maanaam Fane yow si famille Kuyaate nga bokk. famille Kuyaate laa bokk kon kon man bu ma woyul tooñ. waaw famille Kuyaate mën naa considérer sama bopp comme un géwél géwél Mandeng. waaw yow jox yow koy tey maanaam ku la joxoon xalam mën nga réeti. waa mënul ñàkk. instrument yi instrument yi ban instrument yi nag. Euh, li ma ci commencé jouer bërikul guitare laa doon commencé def donc maa ngi ci maa ngi ci lancé bobu. ci di parce que musique bi may def il faut que ma jouer guitare mais bat légui maa ngi ci maa ngi ci liggéey boobu entamé gu mais maa ngi ci liggéey bobu inshallah. allah nga rap mhm. mbalax mhm. Euh, acoustique mhm. boole ko solo uh-huh. nek na musique yo xamné. ah bon du ma ne lu yomb la dafa laaj ay travail yu yàgg nga yow nga sóobu ci lolu, bëgg incarner yooyu yëpp koy def lan mo la pousser ba nga bëgg def lolu yëpp oui, parce que je me ni que le euh, but que jël mu de sensibiliser. Uh-huh. aussi de dénoncer. ça veut dire que ni but de quoi pour sensibiliser mais aussi pour dénoncer. mais donc pour dénoncer. Uh-huh. il faut nous dégg quoi. ok c'est bien. pour aussi sensibiliser. Uh-huh. il faut nous dégg quoi. mais il ñi fi dénoncer pour yëpp gars yi non ça dépend. ça dépend moo tax ma là la. façon dénonciation dénonciation du. ça ah, dépend ci rab bi wala ci kii moo tax ma ne la ma jaaree ko slow. Uh-huh. cest à que c'est quelque chose loo xam ne on l'entend. ok man damay ngay dégg sama parole. Uh-huh. moo ma gën a ne musique bi neex mais nga ne lu muy wax am na solo. Uh-huh. Euh, ni nga focaliser woo ci yaay de trop. daa mel ni da nga da nga am. dëgg-dëgg cofeel bu gré. parce que yaay kenn la quoi yaay kenn la ci doom. yaay mënoo ko fay. donc def na naa acapella boobu sànq ni yaay kenn mënu ko fay. yaay dafa sori ci doom kon donc lépp lu ñu am rek yaay moo tax. mu nekk ma nekk ku sori ci yaay mu nekk. tey bi nga toogee bi nga toogee. Mhm. gisatoo ko sa wet. Mhm. noonu la la def. waaw mu nekk loo xam ne c'est quelque chose d'affreux. mu nekk aussi tamit loo xam ne c'est dur à vivre. Mhm. Euh, ñàkk yaay dafa metti te da a ñàkk euh, man doon wala ñu doon ku teel a yaay mu nekk lu metti tamit mais ñu ngi sant yàlla bu baax. ndax euh, yàlla seetaanuñu. ñu ngi suñu famille ñu ngi suñu entourage suñu ami suñuy xar suñu nit. loolu rek que ni boo leen gisee sa xel dina dal mais yaay. kenn mënu ko remplacer quoi. Mhm. kenn mënu ko remplacer di nuyu sama yaay yooyu de passage Ndeye Lobé Sall ak Ndeye Fatou Mansour man. Ndeye Fatou Mansour Ndiaye ah? <laughs> sama goro la ah sama dafa sonn ci man <laughs> xam nga chaque jour suba ngoone bu dégg bëccëg di woote. ñooñu amoo seen fay quoi. vraiment dëgg la parce que ñoom coloré bu yàgg la. Mhm. ak sa famille. ak sa waaw ndax yaakaar na sa yaay foofu la dëkkoon. Mhm. Euh, kon coloré bu yàgg la. coloré bu yàgg ba ñoom bàyyiwuñu ba léegi ba léegi bàyyiwuñu ba léegi bàyyiwuñu yaay dafa nekk kenn ci doom moo tax pes yi ma bind ci yaay bëri na li may bind ci baay sax aussi tamit euh, yaakaar naa ne laal naa ci sax yaay bi may bind ci baay kon donc loolu euh, nekk na lu foor ci doom yaay kenn mënu ko. yaay ñetti yoon baay soog a ñëw yaay yaay kenn la kenn la donc nañ fonk suñu yaay nañ fonk suñu yaay pour ceux ñi nga xam ne seen yaay ñu ngi dund mhm. di leen lancer message boobu lépp lu ñu mën ngir seddal seen xolu yaay nañ ko def incha allah waaw tey fi àdduna toll mhm. tey nga gis ni musiciens yëpp nee nañ teg parce que feebar bi nga xam ne moom mooy Covid 19. Mhm. lëmbe àdduna bi mhm. téye ko ci loxoom. Mhm. yow ban jàngat nga ci am te aussi euh, ndax def nga ci participation wala sensibilisation pour nit ñi lan nga ñuy wax ci loolu. waa aussi tamit di di ci mbas bi nga xam ne moom lañu yàlla natoo. Uh-huh. ñuy ñaan yàlla yàlla tegal ko monde entier. amiin nga xam ne mi ngi fii Sénégal fii am na sa existe bel bien feebar bi.

Covid 19 bi maa ngi si doon wax ni fagaroo gën faju maa ngi ko def euh, bitu rab rab rab waaw bitu rab laa ko defee maa ngi doon fagaroo gën faju teel jëfe ndigal daal di wëyal fexe ànd daal di xeex mhm. daan corona li mu ragal moo di set li koy daan mooy moytu mbooloo ngir mu ñibbi ñun foog ñu tëju tu contact dafa baadalo moom corona amul mbokk ndax bàyyiwul kenn nit ku weex ak nit ku ñuul président ak lambda borom alal ak baadoola mu di góor mu di jigéen kum si jàpp dalay faat parce naa ko ci quoi lum gërëm naa la sant naa la te lan ngay wax waa Yaraax su ma la bàyyi woon nga doon tàggoo waa di rafetlu encore une fois Mamar invitation bi mhm. di rafetlu invitation bu baax di di di jaajëfal waa euh, toute l'équipe de Hann donc di nuyu encore une fois waa Yaraax mhm. di leen wax seen doom a ngi nii donc ñëw leen ngeen jàppale ko ñëw leen ngeen soutenir ko gis naa ñaan yi aussi tamit euh, di di rafetlu bu baax a baax a baax invitation bi di jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp waaw jërëjëf sama gars yi ak Hann TV nee naa leen si seen émission Feeling nee naa dinaa dugg ci ruq-ruqaat yi dugg ci tunnel yi génnee ay jeunes talent teg leen fii sama wet fas yéene waxtaan ak ñoom ci ay jaar-jaar tey ma dalaloon lum muy artiste bi nga xam ni artiste bu mag la muy def affaire yu am solo manam ku dajale rap mbalax solo di ko def non dëgg-dëgg nekk nga ko am talent kon tey moo tax ma invité woon ko sama gars yi waaj leen de ndax maa ngi si di ñëw ci yéen jeune talent rek laay wër fu di waxtaan ak ñoom ma ni Omario ak Hann TV si jeune talent yi tey rek ngeen xam ni tey lay neex tey mu rumbax tey mu paccax ak seen émission Hann Feeling ba beneen yoon ci beneen émission ak beneen jeune talent jërë ngeen jëf. suma yaaya booyo nang ma baal juróom-ñeenti weer ci biir yaay doy na coono ñaari at ñetti weer yaay di nampal di yar di aar yaay di def xam-xam ñaata guddi yaa booyoo munoo nelaw di feebar di jooy yaay teg si di la saw munu ma yëg sa metit yaay fekk na ma doon ndaw sama yaay yaay booy nang ma baal donc loolu laa doon tàggoo di ko tàggoo ak waa euh, képp ku seetaan Hann TV di la jaajëfal di béggee sama gaay yëpp